moo la lekk li nga xamante ni moom mooy làmb ji ndeysaan Ama Baldé mooy waaj a ñëw loolu la ñuy xaar Ama Baldé léegi mooy egsi ba léegi egseegul Ama Baldé daa mel Ama Baldé egsi Mohamed Ama Baldé egsi Ama Baldé egsi na oh ndeysaan Ama Baldé Pikine deselatu ko dara xoolal li booloo xoolal xale yaa ngi di ñëw Ama Baldé mi ngi noonu si biir oto bi Ama Baldé Mohamed mi ngi noonu si biir oto bi ndeysaan ñu déglu oh fi mu seen yaa ngi doon di tàkk Ama Baldé yegg si na Ama Baldé yegg si na ndeysaan Ama Baldé yegg si na Ama Baldé yegg si na Ama Baldé yegg si na ngi noonu mbooloo baa ngi da ndeysaan xale yaa ngi yuuxu xale yaa nga yuuxu xale yuuxu ndeysaan xolo fi mi seen yi xale yaa yuuxu Ama Baldé egsi na bokk internet Sen Teranga Ama Baldé egsi na mi ngi si si buntu kër gi foo sànni mbaq mu tàq Ama Baldé daa ngi noonu Ama Baldé ngi Ama Baldé dafa mel ni si premier oto nekk Ama Baldé daa noonu oh Ama Baldé ngi noonu ngeen di gis oh xoolal Ama Baldé image yi oh Ama Baldé ngi noonu yëkkati loxoom Ama Baldé ngi noonu di yëkkati loxoom Ama Baldé ngi noonu di yëkkati loxoom xale yaa nga yuuxu xale yaa nga yuuxu Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ngi noonu ci oto bi Ama Baldé ngi noonu ci oto bi Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé egsi na Ama ak Boy Niang Ama ngi noonu ak Boy Niang ndeysaan Ama Baldé ngi noonu ànd ak Boy Niang Ama Baldé ngi noonu ànd Boy Niang si wetam Ama Baldé ngi noonu xale yaa ngi noonu di mabbeeku xoolal Boy Niang mi ngi sotti bi ndeysaan Ama Boy Niang drapeau Pikine la Boy Niang yëkkati drapeau Pikine Mouhamed la Boy Niang oh image bi rafet na ah l'histoire retiendra histoire da koy bind Ama ak Boy Niang bokk ndaw ci benn oto Boy Niang ci drapeau bi Ama nekk ci kanam ndeysaan ndeysaan mi ngi noonu Ama ye ndeysaan mi ngi noonu mbokk yi seen Teranga TV Ama Baldé a ngi noonu di yëkkati xale yaa ngi noonu di laaj tànk yi xale yaa ngi noonu image yaa ngi noonu mu xamel ni ngay filmé doy na waar sama xarit bi sa tentel na nga def mosoo filmé tey ngay doog a mën a filmé mais xoolal yi xet image ah, Ama Baldé a ngi noonu Ama Baldé a ngi noonu Ama Baldé a ngi noonu yëkkati balcon bi Ama Baldé a ngi noonu mbokk yi seen Teranga TV image bi Ama Baldé ma ngay nuyu dëkkandoo yi oh xale yaa ngi jooy xoolal xale yi ni ñu yuuxoo xoolal xale yi ni ñu dire ko xoolal si wetu Ama Baldé xale yi nañu diree ko oh Boy Niang mi ngi yor drapeau Pikine bi waaw mais image yi rafet na Boy Niang ngi yor drapeau Pikine bi oh ça c'est extraordinaire mais c'est Ama Baldé ak Boy Niang noonu ànd ñoom ñaar Mouhamed li ngay filmé oh Ama Baldé mi noonu ànd ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé ànd ak voilà Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé ngi noonu Ama ngi noonu ndeysaan xoolal xale yi ñu ku nekk ngi raay tànk bi xale yi dañu ko bëgg Ama Baldé mbër mu baax la mbër mu la waaye nag xale li ñu ko toppee est-ce que lamb kese la déedéet lii romb na lamb bii xeetu mbooloo mais Mouhamed bii xeetu lamb oh ñu déglu ambiance bi. ndeysaan ñu déglu Ama ndeysaan xale yaa ngi noonu xoolal ma xam xool xale yi ñuy saxatoo xool xale yi ni ñuy daanoo man ma xam ne lii ba jàmm la mais lii ba jàmm la oh c'est extraordinaire xoolal xale yi ni ñu buxante xoolal xale yi ni ñu buxante waaw mais ma oh, bi Ama Baldé ngi Ama Baldé ngi noonu buntu këram Ama Baldé ngi noonu buntu këram xale yaa ngi dóor xale yaa ngi dóor Saxal Baldé lu muy def nii mais Saxal Baldé lu muy def nii mais Saxal Baldé lu muy def nii day dóore jaru ko nag jarul dóore quand même xoolal Saxal Baldé yaram moo tàng Saxal Baldé yaram moo tàng Saxal Baldé yaram moo tàng Saxal Baldé mi ngi dóor booy Saxal Baldé mi ngi dóor xale yaa ngi mi ngi xaal bëgg a xaalal Ama Baldé est-ce que jar na lii oh Saxal Baldé yaram dafa tàng ñu ngi buux moto bi ndeysaan xale yaa ngi bukkante Ama Baldé ngi noonu ngay wàcc dox Ama Baldé ngi noonu di wàcc dox Ama Baldé ngi noonu di wàcc dox Ama Baldé ngi noonu di wàcc dox Ama Baldé ngi noonu di wàcc dox Ama Baldé ngi noonu Ama Baldé muy dugg si beneen kër gi Ama Baldé muy dugg si beneen kër gi Ama Baldé muy dugg si beneen kër gi oh xale yi nee nañ ci booy drapeau Pikine bi Mouhamed xoolal drapeau Pikine Boy Niang tee ko mais lii rafet na image bi rafet na xoolal drapeau Pikine bi la Boy Niang tee si loxoom Boy Niang tee na drapeau bi taxaw buntu kër Ama Baldé Boy Niang ngi noonu di dem Boy Niang ngi noonu Boy Niang tee na drapeau Pikine bi taxaw buntu kër Ama Baldé ndeysaan ana ñu fi doon xuloo ana ñu fi doon xeex ndax lii ah juboo nañ Boy Niang Boy Niang accompagné Ama Baldé ndeysaan ndeysaan Oh, Boy Niang ma nga yëkkati loxo kër Ama Baldé Boy Niang ma nga yëkkati drapeau bi Boy Niang ma nga yëkkati drapeau bi Mouhamed oh image bi rafet na ndeysaan oh xoolal xale yi ni ñu xëccoo xoolal mbooloo bi ndeysaan Boy Niang ngi noonu Boy Niang ngi noonu yëkkati drapeau Pikine bi Boy Niang ngi noonu Pape Sarr nekk naa ginnaaw Boy Niang Mouhamed mais Mouhamed ñu doon xuloo laa yërëm que yoroon na jaru ko de. parce que si jiwoo si lépp si jàmm la mujj làmb lii la waaye mi ngi doon Boy Niang jërëjëf la ñuy wax xale yaa ngi yuuxu jërëjëf Boy Niang jërëjëf dañu kontaan si moom mais xoolal mbooloo mi Ama Baldé dugg na si biir kër gi ndeysaan jërëjëf Boy Niang jërëjëf xale yaa ngi buxoon si ba léegi mais lii doy na waar mais mbooloo mi doy na waar mbooloo mi xanaa Ama Baldé dañu doon xaar mu ñëw ñii xanaa Ama Baldé dañu doon xaar mu ñëw ñu soxatoo boppi koñ bi waaw mais lii ba jàmm la ndeysaan Ama Baldé mënu sax dugg këram beneen kër gi la dugg parce que mbooloo bi ko mbooloo bi fi nekk dafa bari xale yaa ngi noonu ba léegi ñu ngi taxaw